damay jóg fajar di ñëw si marché bi gis sa ngaas daw lu ma yóbbu sama njaboot fii ñuy amee suñu teraanga nag ku fi jëlee daw ñu rey ndax àll bu fa demee kenn du fa fekk àll kese la àll kese amul amul kii suñu kër ñun àll kese lañ fa gis moom fa la ñuy jógee ak gerte amul fa nag àll kese la bu ñu fa yóbboo nag dinañu sonn ndax nit ñi dañu dugg si ruq di jaay ñun ñu xëy suba doo am la jox sa njaboot te dañoo war a añ a reer war a njaboot lépp noo ko gaal du ñu jigéen ñi kon bon nañ ñu dimbali ngir yàlla bàyyi nu saam saam la nu xamoon la nu bëgg. naqar bi ñu am tax ñu taxaw fii di wax dañuy ay jigéen du jóg fajar ñu nga jullee suba ca àll ba andi fii suñu jën di jaay bañ a sàcc bañ a fen bañ a mooy yàlla ñu bëgg ko ñu dimbale ñu toog fii ndax àll bee ku fa dem di jaay jën doo fa gis kenn kenn nekku fa te jigéen ren rek bëgg a liggéey nag Macky Sall nag ku ñu war a dimbale la ndax fu ne fii la ñu ne foofa la. ba mu toog fi mu toog kon nag war nañ ñoo dimbale jigéen ñi kee sonn nan taliba boo fa demee ñu nangu say jën li nga nar a am nga neex laata ko fee ñu door la ko jox ngay jooy ba midi nun ku ñu war a dimbale la nun jigéen ñi cee sonn nan dañoo xëy ay délégué ñëw ni ñu ñun détaillant yi ñun ñooy détaillé ay jën jën lañ fi détaillé ak i légumes préfet nee na da ngeen jóge le 15 janvier bi ñu waxee loolu ñu ni ko lu waral loolu ñu ni ñu waxtaan nañu nenañu nañu benn promoteur léegi mom mom mom site bi bu ngeen fi joggé dalen koy tabaxal su len ko tabaxalé defal len ko ay cantine ainsi de suite ainsi de suite maintenant nak nit bokay tabaxal mbolo mu toll ni nek fi mat 2000 personnes nga len di tabaxal xana bala nga leen a tabaxal ñew ci ñom so ñewé ci ñom nga laaj len, recenser len xam seeni tour tur xam ni nga len di tabaxalé am ay étalage am lepp mais loolu yépp dara amu ci lu dul xëy rek wax ñu loolu moo tax nag ñuy def alerte di ko wax nag autorités yi nga xam ne ñu ngi biir cees di leen ñaan te ñu xam ni fii ay néew ji doole ñoo fi nekk ay dawkatu dépense ñoo fi nekk ñoo ñoo xam ni tey jii bu ñu la waxoon seen situation sociale danga nga koy weddi situation sociale yu grave moo fi am ñoo ay veuve yoo xam ne seen jëkkër seen nangam liggéeyatuñu suñu xëyee rek la fi benn 2000 3000 dem defar nag ni ko nit ñi di waxee kenn bañu ko mais nag daa am lu muy àndal préalable bu muy àndal ñu xam ni kat kii dafa jóg pour defar ndobin nag ku mu rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw lii lan ñu waxoon ca saam ba xëy yëkkati ñu jëlee ñu fa bi ci topp moo di lii détaillé jën ci marché bi bari na mënoo yëkkati fii bàyyi la des ndax marché ngi ñu jàkkaarlool marché nga fële ñun boo nu yóbboo ca àll ba mooy dootoo leen jaay àll bële ku ñu fa yóbbu mooy dootoo leen jaay te àll balaa nga faa yóbbu nit xanaa nga defar ko. délégué yi ñoom ñoo ñëw wax ni ñu préfet nee na le 15 na ngeen fiy jóge waxuñu ñu lu leer léegi nag ñun balaa nga ñoo rey ñu yuuxu waa Thiès dégg waa Sénégal dégg en particulier la ñëpp dégg ñu xam ni ñun kat lii ñuy wax lu nu ñor la ndax fii la ñuy daw ses dépenses ñi ngi dagg juuti ñi ngi koy dagg mairie noor bii moo ko moom waaw kii waaw. mi ngi nii dañuy dagg